débat bi mooy lan moo tax a jóg président Macky Sall ba dugal ci suñu ay acte maanaam suñu ay loi loo xam ne état bi nga xam ne moo gën a moom la ñu gën a laal ci wàllu terrorisme moom sax dugalu ko d'accord ci ay ci ay attewam maanaam ci ay loo am benn ñaareel bi euh, bi tey réew moo xam ne mënoo toog bés te seen télé bokk xëy na ci ñu koy gën a wone pour na pas dire yéen a koy gën a wane munoo toog bés te amoon ñaar ba ñett ba juróomi dëkk yuy naxarlu seen suuf bu ñu sàcc. Ah. assemblée nationale deful réunion ci loolu ñu bëgg ñu gëm loo ne ñun senegal li nga xam ne moo dajale député yi àjjuma bële paase moo ëpp solo coowal suuf bi nga xam ne mais lëmbee na senegal moo gën a am solo. coowal liggéeykat yi nga xam ne mais bés bu nekk centrale syndicale dafa mel ni amatu fi syndicat dafa mel ni amatu fi liggéeykat yi laissés à eux-mêmes ñuy dégg seen marche seen manifestation euh, licenciement arbitraire arriéré de salaire ak ñoom seen. Mhm. mais élément yooyu danga nga koy teg ci table bi boo ko tegee ci table bi da nga naan mais y a un problème ñii est que fu ñu bëgg a xooloo foofu la ñett Sarkozy Tony Blair France Angleterre. ñii dem song Xadafi dem song nu mu tudd Saddam Hussein ñooñu képp ku leen def conseiller c'est que yow naroo def lu baax. Hmm. c'est que yow askan taxulaa jóg. Hmm. ndaxte ku xam Sarkozy ku xam Tony Blair xam bon bu ñu bon fen yi nga xam ne moom lañ doon fen ngir rek seen multinational ñoom ngir rek aakimoo pétrole ak alalu libi ak bësu Irak ak ñoom seen. ku leen def sa ngir ñu lay xelal yow askanu Sénégal ak askanu Afrique taxulaa jóg. tey loolu yëpp boo ko bëlantee bi tey lim ñuy won mooy dëgëral dëggal li nga xam ne moom la ñëpp wax fii. nga teg ci ne loolu bokkoon na ci enfin loolu bokk na ci li ci li tax ñu tëj ma fanweeri fan rëbës 2019. ndaxte FRAPP dafa defoon conférence de presse wane ne France de lii muy def nii fu mu nar a jëm mooy bomb dina éclater Sénégal ñu ne ay terroriste la France am na lu muy waajal. Mm-hmm. parce que boobu dañoo xooloon ne réew yu bëri Mali Burkina naka la commencé woon France day def ni ñu koy waxatee ay test ay simulation ay similation d'accord attaque terroriste ak ñu xool naka lañ koy contrer. da ko def Mali ne terrorisme ñëw da ko def Burkina la même chose ñëw. jamono jooju ñu gisoon ne euh, fii ci wetu ville de Dakar. Mhm. Auchan ba fa nekkoon waaye tamit nu mu tudd Ndar amoon na ay test ay simulation ay ay exercice yu yu ñu doon def ñu ne ah France li muy def nii fañ ko doon gis fi mu mujj mooy terrorisme ñëw na fa ñu ne kat boo xoolee ba ci biir ci Afrique rawatina Afrique sow jant. fépp fu terroriste yi nekk mooy fépp fu France nekk France mënul am ay junni ak ay junni soldats ay drone ay hélicoptère depuis ay at sans compter les soldats maliens ñu ne ñu maanaam terrorisme yi la ëpp doole ñu ne en réalité France moom mooy terrorisme. Hmm. en réalité France dafa lëkkaloo ak ay terroristes d'accord ngir ñooñu ñuy woowee terroriste et muy nervi France nervi dans le sens de homme de yoo xam ne dañ leen fay ngir ñu def. ay njombe fay ñu armé leen jox leen ngànnaay ngir ñu def ay njombe comme ça ñu wax waa Mali waa Burkina waa Côte d'Ivoire waa Sénégal seen mag France seen doomu ndey France seen baay France dafi war a toog. <laughs> ok et donc ñu ne attention. Hmm. noonu lañ ma jàppee man tëj ma fanweeri fan. parce que dañoo jàppoon ne France. fi mu gën a am doole mais xool leen Nigéria le Nigéria s'en sort mieux contre Boko Haram sans la présence de la France san kenn jàppale ko que pays anciennement colonisé par la France France am fa ay base xoolal rek li may wax Nigéria ni mu ciy génnee contre Boko Haram ñun xaajuñu bay mel noonu nous sommes désemparés même Cameroun sax mi nga xam ne ci wàllu xeex maanaam terrorisme dafa xaw a jël indépendance am ak France moom sax moo ñu tabi donc ñun buñ ñu waxee ne. France boobu moo ñuy conseiller te France boobu mooy dooleel terrorisme may fàttali ne France boobu à travers seen ministre des affaires étrangères Laurent Fabius moo waxoon. bu ngeen duggee ci moteur de recherche yi ngeen tàpp di ngeen ko gis. le groupe Al Nostra fait du bon boulot en Syrie groupe Al Nostra c'est un groupe terroriste affilié d'accord à ATMI. mais mais lan moo ñu dese bu fekkee un ministre des affaires étrangères bu France mu ngi tàccu groupe teroriste boo xam ne mu ngi nekk Syrie ndax ñoom d'accord ñu ak Bachar al-Assad Bachar Bachar al-Assad fu mu daaw loolu yëpp nag boo ko boolantee ci ngay gis ne ñun fi ñuy xolloo du foofu président Macky Sall li ko tax a jóg mooy dafa jëm ci troisième candidature. Mm-hmm. troisième candidature boobu mu jëm. dafa gis ne askan wi ay gëtam dafa commencé xippi waaye yamul ci foofu askanu Sénégal dafa commencé wóolu boppam wóolu doolewam xam ne bu ko réglé wul ci voté dina ko réglé ci mbedd bi. Mhm. président Macky Sall nag commencé jël xoddeeku balaay lakkale. Mhm. ne fi ñu jëm te dama bëgg a déclarer sama candidature sama troisième candidature illégale et illégitime foog ma ngànnaayu ngànnaay boo xam ne naa tiital ñenn ñi. ñi nga xam ne nag bëgguñu tiit wala mënuma leen tiital bu ñu defaatee vidéo naan wala post maanaam Facebook naan askan wi génn leen un an à cinq ans de prison buñ la jàppee ci mbedd bi mën nañ la tëj giiru dund. bu ko bu ko foofu laa jëm may daanelee mooy lii mooy enjeu bi. donc am na fu ñuy wàccee débat yi pour man nous ne rendons pas service aux citoyens sénégalais. d'accord li am mooy. deux mille dix neuf dafa am Sénégal loo xam ne mosul am dans aucun pays anciennement colonisé par la France en Afrique subsaharienne mooy lan pour la première fois mu neex ñu mun ñu bëgg ko ñu ñàkk ko bëgg c'est ça la réalité. mooy pour la première fois mu am un candidat bu def campagne contre le franc CFA contre les accords de partenariat économique contre nooteel bi ñuy noot suñu ay réew mu jël troisième. avec plus de 15 pour cent waxuma ay Moustapha Niass ak Idrissa Seck de. ñooñu bi ñuy am seen 16 seen 16 pour cent seen 17 pour cent wala seen 20 pour cent defuñu woon campagne ci jëlee fi nooteel tinki Sénégal tinki Afrique. defuñu woon campagne ci buñ fi faloo franc CFA daf fi jóge accord de partenariat économique dañ ko fi jëlee FMI ak Banque mondiale dootul nekk ñi nga xam ne ñoo ñuy imposer suñu politique. c'est la première fois Côte d'Ivoire Mali Burkina. benn Bénin Niger Tchad Sénégal moom un candidat bu battre campagne sur sa am 16 pour cent des voix loolu fu mu nekkoon feneen li am Sénégal lay jur mooy France day daal di tiit ñi fi toggal France dañuy daal di tiit dama koy waxaat. Mhm. Firawna dafa géntoon <laughs> ñu ne am na xale bu góor bu la nar a président Macky Sall géntul dafa xool ay sondage mhm. yi ko wax ne lii nii fi mu la jëmee mooy le cinquième président si si ça continue comme ça s'appelle Ousmane Sonko loolu moo jur. Adji Sarr Sonko moo continuer jur lii xew ba léegi moo continuer jur moo nar a continuer jur moo nar structurer la vie politique économique et sociale ba deux mille vingt trois mille vingt quatre ndax Macky Sall. ak ñi ñuy noot ay France ak ñoom seen ñoo nar a am ndam wala ndax askanu Sénégal enfin askanu Afrique enfin moo nar a am ndam léegi nag xeex bi jeexagul de am na réew yoo xam ne dañoo voté ay loi dañ ko voté askan yi continuer xeex ñu jël loi bi génnee ko donc donc jeexul d'accord dama bëggoon def tuuti ndox rek ci bisaabu Awa Diop Awa Diop xeex du jeex mukk da dañoo imposer askan wi seen majorité mécanique assemblée nationale bi nga xam ne reflété wul li askan wi di xalaat mais jeexagul. kon am ngeen am ngeen yeneen façon bu ngeen mun a bu ko promulguer am ngeen yeneen façon yi. ngeen war a déjà déjà député yi. yóbbu nañ. mbir mi ci fu maxane doonee benn mm-hmm. même bu fekkee xam nañ ne la justice nu muy mujjee bon ah. xam nañ ne la justice sénégalaise ni mu mel elle n'est pas libre elle n'est pas indépendante mais bon mën nga tomber xëy na benn bés ci un juge indépendant ci ay juge majoritairement indépendant mm-hmm. yoo xam ne mën nañ jël décision bu dëppoog yoon ak njëriñu askanu Sénégal mm-hmm. mais xeex bi dafay continuer mais bi tey ça dépend. Mhm. Mhm. excuse-moi parce ci <laughs> askanu ah, ça mhm. Sénégal benn ñaareel bi mais mais euh, damay faral di fàttali ne xeex ci jamono njaam moo gënoon métti jamono ji. xeex ci jamono colonisation moo gënoon métti jamono ji. xeex ci jamono apartheid. moo gën a métti ay loi xaw ma antiterrorisme. maanaam ma Macky Sall. mais bu fekkee suñu maam ak suñu maamaat yi ñoo mënoon xeex ba pare am ndam ci jamono apartheid ci jamono colonisation ci jamono apa euh, ci jamono njaam sàkkaamaa ñun ñi nga xam ne nekkuñu ci jamono njaam duñu jaamu kenn nekkuñu ci jamono colonisation duñu colon wu duñu coloniser wu kenn nekkuñu ci jamono apartheid donc dinañ continuer xeex ak président Macky Sall lii nga xam ne moom la ñu bëgg mu xam mooy wax dëgg yàlla contrôle judiciaire liberté provisoire emprisonnement arrestation loi antiterroriste loolu yëngaluñu tey yëngaluñu ëllëg tey lañu gën a jox suñu bakkan suñu ruu askanu Sénégal suñu réew ak Afrique. loolu président Macky ah Sall ah xam ko ba pare wax ndaw yi déedéet kaso yii ñun mënuñu ko feesal bu kenn tiit ba pare jooy nag fajul naxar. Mm-hmm. jooy fajul naxar. dañoo war a bëre ñun ñépp góor yi ngemb jigéen yi laxasaayu takk takku ba dëgër kën ngir bañ troisième candidature bi ngir soppi suñu Sénégal soppi suñu Afrique. d'accord bi tey li ma bëggoon ajouter juste c'est que euh, Guy Marius mi ngi koy wax mi ngi naan débat bi ko wàccee foofu mais il faut que ñu wàccee ko foofu par rapport ak loi bi ngay demandé. Mm-hmm. Mm-hmm. ndax ku manifester ti dañ euh, nga def violence yooyu. Ramatoulaye je vais répondre à ça. oui juste que foofu également il y a un citoyen lambda boo xam ne xamul. xamul li nga xamante ni moo nekk ci biir loi boobu. Mm-hmm. est-ce que tey jii bu amee lu ko metti mu war a wàcc ci biti def manifestation dénoncer li nga xam xamante ni moo ko sonnal dañ koy jàpp non duñ ko jàpp. en réalité dafa am benn point boo xam ne dama ko fàtte woon et sa question bi daf ma koy fàttali. Mhm. Mhm. gis nga France tey jii nii depuis plusieurs années dafa am taxawaay boo xam ne moom la ñu am ngir intérêt ñi nga xam ne ñoo ngànk France ngir mu am ñoo xam ne dañ leen di mën a exploité ci multinationales yi nekk France. ngir ñu mun nangu lépp muy ay conditions de travail yi maanaam précaire mais salaire yu précaire ak ñoom seen dañoo dem ba ñu def amalgam entre musulmans et terroristes loolu c'est pas tubaab yi dañoo bañ julli ci de. Mhm. non non non c'est un racisme anti-musulman boo xam ne l'objectif ci amalgam boobu ne musulman égal terroriste mooy pour maintenir. ñi nga xam ne ñooy ay jullit biir France ci condition yoo xam ne dinañ leen mun exploiter amalgame boobu ci lañ nekk fii Sénégal pas le même mais amalgame diggante manifestant résistant opposant ak terroriste mhm. maanaam mhm. doo gis ci loi bi fu ñu la wax ne ku marche dañ lay déclarer terroriste déedéet mbir mi mooy mhm. loi bi dafa yaatu yaatu boo xam ne mais insurrection mooy lan lan moo tax Sonko. c'est différent ko ne. insurrection c'est différent Guy. ah déedéet. non appel à l'insurrection c'est différent. ak koo xam ne dafa génn di def marche. mu am ay casse mu am ay bag bagage mais justement déglu ma rek. Hmm. xam nga ñoom lan la ñuy woowee insurrection. c'est quoi man bés bu ma taxawee wax sama page Facebook wala def vidéo ne gars yi nañu génn. Hmm. troisième candidature bi duñ ko nangu. Ah. loolu mooy lan. appel à l'insurrection mais voilà. Hmm. mais man man. Ah, du ma foo du ma foo ak mooy. Mm-hmm. ñoom dañ koy jàppee appel à l'insurrection mais dañ koy jàppee leneen loo xam ne mu ngi ci loi bi. muy lan maanaam groupe nit. kenn nit. Mm-hmm. wala groupe nit noonu lañ ko bindee boo xam ne da bëgg a def pression sur un gouvernement wala sur une entreprise wala et cetera et cetera. Mm-hmm. noonu lañ ko bindee bu boobaa. bés bu ñu génnee Macky lu wax ne dama bëgg a am troisième candidature illégale et illégitime. sama classe gi ne suba na ñëpp génn. Ah. xam nga nu ñu koy waxee ne comme ni ko loi bi waxee. appel no la danga wax loo xam ne c'est pour faire pression sur le gouvernement. Oui. Mmh. et donc c'est un à cinq ans de prison. loolu mooy amalgame bi. Mmh. loolu la ñuy naan loi bi c'est une loi liberticide c'est une loi démocraticide parce que loi bi bu amoon kon père Moustapha Niass ak xeeram kon tëj nañ ko maanaam. perpétuité mais gi nan ngay qualifier par exemple une personne bu taxaw bëgg. woote comme ni ni ñu ko wax woote population bi ne leen bu subaa na ngeen génn il faut que ñu contrecarrer lii il faut que ñu dénoncer lii su boobaa lay doon kon. résistance. non mais résistance. les résistance. gens n'ont qu'à sortir spontanément on n'a pas besoin de dire par exemple ñun au niveau de la radio am na yenn euh, propos yoo xamante ni si le journaliste qui présente par exemple am na am invité boo xam ni mi ngi wax yenn propos yi mais attends ça engage également ci ci ci rajo nga xam ne mi ngi koy waxee des propos comme du genre euh, di appeler nit ñi ñu génn appeler à la résistance. violence et tout ça donc aussi je pense que ne bu ngeen di résister les gens peuvent résister mais aussi il y a la manière toog di woo à la violence comme on a vu Ousmane Sonko le faire ah, également non waxuma yow damay parler en général j'ai même dit gis nañu Ousmane Sonko woote fi daan la seconde vague va être va être meurtrière mhm. loolu gis nañ ko fi moment boobu le khalife général des Mourides avait appelé à une accalmie deux parties yëpp mu woo leen mais gis nañu au après li nga xamante ni déroulement des événements. oui. Mm-hmm. duma avocat. Mm-hmm. Ousmane Sonko. donc man pour man xaar leen ba ngeen invité Ousmane Sonko. xaar xaar xaar non xaaree rek leen ba ngeen invité Ousmane Sonko ngeen interpellé ko ci kàddu yooyu man li ma mën a engagé mooy. non gii waxuma nga. waaw non xaaral non non xa waaw mais sauf que man mënuma xam nga boo ma waxee lii. c'est comme si da nga may wax man ma. mais xam nga wax nga sànq également que Ousmane Sonko par exemple moom la ñu gis candidat wax nga ko également tudd nga ko. oui mais bokkul. ah c'est-à-dire que maanaam suñu objectif ma ak yow. bokkul ah. c'est-à-dire que man. mënuma c'est des observations que je fais également man li ma engagé. Mhm. mooy man Guy Marius Sagna. man bokk FRAPP. ak mhm. man bokk M2D. Mhm. or ñun. M2D ñun FRAPP ñun Front Multitude doy na man kenn mësuma gis ak xeer. donc pour man président Macky Sall bu bëggee def dara na xool père père Moustapha Niass moom la ñu mos a foto ak xeer ñun depuis bu ñuy wax pour la souveraineté monétaire France dégage musuñu wax jamais nit ñi nañu dem saccage totale wala Orange et cetera par exemple donc donc donc dama bëgg muy leer c'est pas parce que dañoo voté lu ñu voté mhm. que suba président Macky Sall bu waxee je suis une troisième fois de manière illégale est illégitime. Mhm. maanaam candidat que man ji Marius Sagna du ma wax ne euh, maanaam Sénégal yi génn leen fii laa koy waxee. dina ko wax bu président Macky Sall waxee je suis je suis candidat une troisième fois sénégalais yépp nañu génn résister et opposer wu à ça. Mhm. mais résistance boobu lan nga looy looy looy bugg lan nga gisee résistance parce que boo nee bu euh, Macky Sall waxee troisième mandat na Sénégalais génn résister wu xam nga résistance boo ko waxee rek boo moytul mun na indi mun na indi loo xamante ni li fi amoon la alors yow ci ban fàtt na la ñu la la askan bi war a résister pour loolu mais bi tey bi tey euh, xam nga euh, naka laa ko mën waxee suñu wax naa ko fi sànq les principes de droit ñoo wax ne la résistance à l'oppression est un principe de droit. ok la droit wax. Mhm. yem ci. léegi nag après ku mu neex nga comprendre ko nu nu la neexee ku mu neex. Mhm. waaye nag du ñu nekk fii di la boom du ñu nekk fii euh, di la xañ liggéey xëy ak gontu. du ñu nekk fii di la imposer nga nekk ndóol ñuy sàcc sa suuf licenciement arbitraire dëkk bi takkarnaase ba pare ñu naan la yow waroo fippu ñu naan la yow waroo naxarlu waroo jóg xeex li nga xam ne dañ la ko teg te muy nooteel. Hmm. damay fàttali ne li ñu nekk nii pour man nooteel mënu ko weesu. Macky Sall li muy jéem a def xam nga mooy lan mooy jamono njaam jaaykatu jaam yi li ñu doon def mooy yow mii jaam boo dawee ñu rey la wala ñu dagg sa loxo boo dawaatee ñu rendi la jamono colonisation ñi nga xam ne ñoom ñoo amoon intérêt ci colonisation maanaam noot yeneen askan mais dañ doon def ay loi ngir ñi ñuy noot ñu nangu ko ñu tiital leen ñu mën leen tëj mais apartheid dafa amoon loi dafa amoon ay atte ay att yu doon wax ne yow mii nekk ci apartheid boo demee ci stade place yii mooy place nit ku ñuul restaurant yii nit ku ñuul du fi dugg États-Unis dafa amoon ay loi yi nga xam ne moo doon wax ségrégation raciale yow Rosa Parks nekk jigéen bu ñuul boo duggee ci bus place yii place nit ku ñuul la place yii place nit ku weex la jamono jooju nag amoon na xëy na ay journalistes yu mel wax ne déet bu leen fippu toog leen ci place. nit ku ñuul toog leen ci place nit ku ñuul yi. yéen nit yu weex mais waxin la. non non waxin la dafa soxla déggin. Uh-huh. maanaam li ma bëgg a wane foofu mooy. sa mm. wax ji. Mm-hmm. buñ ko pousser dans ses derniers retranchements. Mm-hmm. foofu lay mujj. et il faut faire attention à ce qu'on la résistance à l'oppression la résistance à l'oppression est un principe de droit. a le droit de résister mais pas dara de faire appel à l'insurrection c'est ce que je dis ma ne jamono jaam tamit hmm. jaaykatu jaam yi dañ doon wax ne ñii nga xam ne ñoom ñooy jaam amuñu pour jël xawma ay ngot ay bantak ay xeer pour xeex seen jaam jamono colonisation hmm. ñi nga xam ne ñoom lañ doon coloniser bi Algérie doon fippu France dafa jëloon ngànnaay ne yéen amu leen droit li ngeen di def parce que yoon moo ko tere ñoom Nelson Mandela dafa amoon yoon noir yi nekkoon état de la même manière tamit maanaam ni mu bëgg a wane si xam nga mooy lan. Uh-huh. mooy yoon xam nga lan mooy njëriñu yoon mooy ñu ëpp doole cim réew bu dee dañuy noot ñu ëpp doole ci lim foog seen nooteel bi ngir nooteel bi mën a wëy foog mu feeñ ci ci àtt yi. loolu le président Macky Sall def man sax dama bëgg ñu des maanaam la loi est un mm-hmm. instrument d'oppression au service des classes. ak ñi nga xam ne ñoom ñooy opprimé ñoom ñooy noot